pense que fiche de parrainage bi moom euh, c'est question boo xam ne c'est lu extraordinaire à notre niveau parce que nous sommes un parti politique bien organisé que kuy wax politique wax ay anticipation xëy na am na lu ñu liggéeyoon loo xam ne si ne euh, depuis ñu jot fichier rek dañoo commencé continuer ci même approche ci même liggéey boobu noonu voilà boo xoolee au niveau presque national daanaka région yëpp woote nañ des rencontres au niveau régional donc pour waxtaan kii teg stratégie yi nga xam si ne moom la ñu eggalee liggéey bi suñ fiche nag fiche numéro 40 la ko sénégalais yëpp xam donc moom la ñu moom la ñuy parrainer le président Déthié Fall waaw pour gàttal daal parrainage moom ñun defuñ ko un problème pour ñun c'est une question qui est derrière nous suba suba bu ñu woote woon on va déposer le nombre de parrains requis pour porter la candidature du président Déthié Fall. mais noonu la ni nan propagande politique la wala suba suba bu leen waxoon ngeen déposé euh, lu nga xamante ne moo di ay parrain man j'ai pas compris wax pour wax pour propagande wala wala da nga wax mu nekk euh, vérité si si yow. parce que samay kàddu boo seetloo fi ma commencé nee la politique c'est une question d'anticipation. ok génn toutes les informations yi nga xam dañ koy laaj mu nekk ci carte d'identité. mais mais bien travaillé. comment ça se fait que euh, fiche yi nga xamante ne moom la ñuy utiliser pour remplir les noms at. Euh, comment yeneen numéro yi nga xamante ne moom moo si nekk yéen ngeen ne pas faut pas occulter que derrière nee naa la nous nous avons mis en place des stratégies par rapport à des questions d'anticipation bu yàggu donc on a lancé des opérations de recensement jàpp naa ne am na liggéey bu am solo bu ñu ci def à travers le secrétaire national en charge des élections et des cadres du PRP voilà te reste parrainage nag dañ information yi laaj ci carte d'identité la nekk mhm. et on s'est euh, fait que ñun toutes ces informations dem nañ ci sénégalais yi def nañ suñu recensement par anticipation mm-hmm. donc aujourd'hui li desaat mooy démarrer sur ces mêmes sénégalais reprendre ces bases de pour que ces gens là qui ont confiance au président Déthié Fall mm-hmm. qui remettent la carte la carte sur la table